tribunal bien kaso taxul ma daw yootaa aw ma loo xamee ni dinaa ko tic sama àdduna lu dul damaa tooñ te man lii dal sama kaw xam naa lan la yow da nga jàpp dafa am ñu lay fexel wala non c'est-à-dire bu rëy am na ci boo xamee ni lu leer la complot bu rëy am na ci jëm boo xamee ni bu leer la non du ma takkal opposition parce que je suis un musulman mhm. du wax lu ma wóorut duma du tooñ mais xam naa ni complot am na ci te xam naa ki ma ko def waaye ki ma ko def nag bàyyi naa ko yàlla. est-ce bi ndax démission bi. waaw bi loolu après. comme ni mu loolu danañ danaa leen si wax après lu leer nañu bu subaa incha allah. mais mais ak lu mënti am mais ak lu mënti am. Uh-huh. Euh, pour ma pour pour sama der man. bu laajee ma setal sama der. Uh-huh. bu laajee bu ma démissionné mooy tax sama der set. Uh-huh. wala mu laaj ma démissionné mooy tax justice def liggéeyam. ma laaj bu laajee ma démissionné moo tax du ma gêner le président Macky Sall danaa ko def. paraît-il que la démission a ma confirmée ah. waaw pare naa pour loolu. mais nag li ci des dama koy bàyyi sama avocat mu yeggali ko mu si yeggali si yegg mais na xam ni man bokkuma ko àdduna du ma ñooñu àdduna këf man dong daara laa.